إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jalla waala mboolem xéewal yu nekk ci ñun ci moom la jóge ñi ngi koy gërëm gërëm gu amul àpp di seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo jàngale naka la ñuy jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk julit suñu borom day moo wax ab santaaneem ca téeréem bu tedd ba mu ne ay yéen ñi nga xam ne di ngeen a gëm bisu àjjuma bu jotee ba ñu noddal ko lépp lu ngeen mënoon a nekk bàyyi leen ko na doon jënd ak njaay laak lu mën a doon ngeen dem wuy ji wootab yàlla boobu nee na loolu day moo gën ñeel leen su doon xam ngeen ay bisu àjjuma jot na lépp loo xam ne yaa nga ca jàpp ne lii kat njariñ la muy jural suñu borom nee na déedéet nga bàyyi woon ko wuy ji wootab yàlla ba moo gën ñeel la bu doon xam nga amma bu woote ba pare buñ jullee ba pare nag tasaaroo leen ci kaw suuf ngeen delluwaat sàkku ji ngëneelu yàlla jalla wa ala suñu borom mi ngi lay jàngal yow mi nekk sa commerce yow mi nekk ci sa liggéey xamal ne lan cay sàkku ci loxo yàlla la nekk lay tax mu barkeel ci loxo yàlla la nekk moo tax suñu borom mu ne suñu wootee jullit àjjuma bàyyi leen lépp su ngeen paree nag ngeen sàkku ji waat ngëneelu yàlla ca it bi su àjjuma boobee bu julli ga pare it day leen tudd yàlla lu baree baree bari ngiree ngeen doon ñuy texe mbokk li mooy àjjuma àjjuma bi nga xam ne soo demoon tey ca ñu ñu jiitu woon suñu borom yàlla santoon na leen ñu màggal ko waaye ñu def seeni pexe jëfandikoo seeni xel bàyyi tegtal yu jóge ca yàlla comme na ko seytaane jàngale yahud yi jàpp ne déedéet bisu samedi daal moo gën a màgg kon ñun nañuy daje di màggal bisu bisu bisu samedi nasaraan yi yàlla na leen màggal leen ajjuma ñu dajale seeni xalaat jëfandikoo seeni xel daaji ne bisub dimanche day moo gën a màgg ñun nañuy daje bisub dimanche mbokk loolu lu la yéem la waaye tey jii da ngay xool ñun jullit laylatul qadr bi ñu yàlla tànnal wax ko ci ab téeréem na laylatul qadri xayrun min alfi shahr doomu jullit day taxaw ne déedéet guddig gàmm moo gën a màgg guddig laylatul qadr lu mel noonu it la yahud ya defoon ba yàlla sànk leen ci àjjuma nasaraan ya def ko ba yàlla sànk leen ci àjjuma amma ñun jullit fa lilahi alhamdu yàlla déppe la ñu ak àjjuma moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yowmal qiyaama doonte ne yahudi ak nasaraan yi ñoo ñu jiitu waaye sama xeet la yàlla jëkka woo atte leen ñu yeyoo àjjana dugg àjjana avant yahudi ak nasaraan ya yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee e yéen mbokk julit xam leen ne day imam muslim soloona xadis boo xam ni abi hurayra nettali na ko nee na xam leen ne day amul benn bis boo xam ne gën naa màgg ca yàlla lii di bisu aljuma moom la yàlla tànnoon bind ca suñu bay aadama moom la yàlla tànnoon yóbbu ko ca aljanna bi mu koy wàcce ci kaw suuf it moom la tànnoon génne ko àjjana wàcce ko ci kaw suuf loolee itamit di bis boo xam ne mooy bis bi gën a màgg ngal la waay yow duma jullit xamal ni la nga war a gën a màggal ci mboolem bisu semaine bi yépp mooy la nga xamee ni nii mooy aljuma jooje suñu borom yàlla def ko feet ñeel ñu tey jii bu dee niti àdduna ñi ngi yàkkamti seen weekend jot ngiree weekend boobu ñu mën caa noppalu man caa dem place ya ñuy féexale seeni xol ci ay noos jullit moom day yàkkamti ajjuma jot ngiree ajjuma jooju yàlla defal ko muy feet ñeel ko mu koy jural njëriñi àdduna di ko jural njëriñu allaxira mbokk àdduna ngi noonu ñu war koo yàkkamti màggal ko waaye ngiree jublu rek sàkku ci ay tuyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bisu ajjuma day ca la àdduna di nar a tukki looloo tax bu dee fajaru ajjumaa ngi waaj a fenk mboolem lu yàlla bind day ànd ak tiitaange ba ba jant bi fenke penku ñu doog a dal bam des la nga xam ne mooy nit ak jinne ngiree ragal bisu penc bay nar a tàbbi mbokk jurit la nga xam ne nii mooy ajjuma joojee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne wax nañu ci xéewal gu rëy mooy ndax jullit yow am nga lu gën a màgg ñaan yàlla yàlla nangul la sa ñaan déedéet mbokk jullit xam leen ne ci ak ñaan doomu aadama dana ci rawe ay moroomam ci àdduna xam leen ne ci ak ñaan doomu aadama dana ci rawe ay moroomam yu ko ëpp loolu jaamu yàlla ci àllaaxira yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam ne ajjuma day bu jotee yàlla dana ci may nit ñi benn waxtu boo xam ne bu tuuti la waaye lu ko ci jullit ñaan dana ko ko may lu ko ci jullit ñaan dana ko ko may boroom xam-xam yi wax nañ ca wax yu bari doonte ne tegtal ya gën a not waxtu woowu mi ngi nekk gannaaw julli tàkkusaan ba ba jant ba di sob looloo tax lu bari ci boroom xam-xam yu jëkk ya diggante tàkkusaanu ajjuma ak ba jant bi sowe dañ daan wéet ak seen boroom jagleel ko la nga xam ne mooy zikrullah julli ci yonent bi jagleel ko la nga xam ne ay ñaan baba la nga xam ne mooy jant bi sow ay yéen mbokk jullit xam leen ne jullit dafa war a yàkkamte ajjuma jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la nga xamee ne nii mooy julli juróom day day far la nekk ca diggante ba fa nga jullee fajar la doxoon ca guddi ga ba nga jullee gee ba fajar da koy far ba nga jullee tisbaar mu far diggante ba ak fajar ba ba waxtu juróom yi mat waaye it yooyee am na ca bakkaar yoo xam ne ajjuma dong moo koy far moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ajjuma it day far la nga xam ne moo dox digganteem ak ajjuma ja nga xam ne moo ko jiitu fii ak yow jullit yaa ngi moytu la nga xam ne mooy bakkaar yu mag yi suñu borom yàlla leeral ci diineem ji ajjuma gi nekk suñu feet jullit ñi war koo ràññeente ak beneen bis bu dul boobu suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam la ëppoon lam daan jàng bu daan jiite mbooloo ma ca jullit fajaru ajjuma mooy saar bi ñuy tudde suratul sajda ak saar bi ñuy tudde suratul insaan lan moo waral loolu saar la yoo xam ne dañuy jàngal cosaanu doomu aadama saar la yu ñuy jàngal dund ni doomu aadama saar la yu ñuy topp dañuy jàngal fan la doomu aadama mujj ba waa àjjana dugg àjjana waa sawara dugg sawara ca mbokk loolu lépp bi su àjjuma lay am looloo tax a rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan fàttali loolu sahaaba yi ngir ñu waajal bis boobee mbokk àjjuma day bokk na luñ ko war a gën a taarale luñ ko war a gën a ràññeet léegi yeneen bis yi mooy li ñu suñu borom wax fazkurullaha kasiran laallakum tuflihun day leen tudd yàlla lu bari ngir ngeen texe waaye ci biir tudd yàlla googee la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne waay allah waaye xam leen ne bis bi gën seen bis yi day mooy bisu aljuma aljuma joojee ca la adduna di jeex ca la àllaaxira di commencé ngal la way bari leen ci guddig aljuma ak ci bisub ajjuma ngeen bari di julli ci man seen julli yépp daañ ma ko gaaral amul fu waay nekk ci kaw suuf julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu dul yàlla délégué na ay malaaka yoo xam ne loolu dong la ñuy déglu su ko defee yàlla dana ko delloo ruuxam ñu ne ko diw ca place tel day mi ngi julli ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ñaan yàlla julli ci yow ca bu boobaa yàlla dana julli ci yow fukki yoon kon nga la waay mi ngi noonu boo julli ci yonent ba fukk yàlla julli téeméer jullil junni yàlla julli fukki junni ala kulli xaal loo man loo man ndax yonent bi dana fa ak say ruu nga la waay bari leen bari leen la nga xam ne mooy julli ci man loolu tax na ba lenn ci borom xam-xam yi gis ne njàng alxuraan day moo gën fu ne waaye bisu aljuma la nga xam ne moo fa gën mooy baril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk bokk na ci teggin yooyee muy ajjuma bisu it la dañ koo war a waajal gaat nga ci gaat nga gu rafet ajjuma la ñuy dajeeg suñu borom yowmal qiyaama ña yeyoo tabbi aljanna suñu borom taaral leen teral leen loolu tax àjjuma bu jotee jullit di gaat nga loolu rasul sallallahu alayhi wa sallam ne xam leen ne day wareef la ci bisu aljuma bépp koo xam ne majeur na mu sangu balay dem ca jumaa ja sang boobee boroom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf am na ñoo xam ne dem nañ sax ba ne farata la donte ne am na ñu ko yemele ci sunna ñaareelu mbir bi mooy nga daal di socci la nga xam ne mooy say bëñ ñetteelu mbir bi mooy nga sol la nga xam ne lu taaru la ci say yére gannaaw ba nga daal di laal la nga xam ne mooy parfum allahuma lu dul jigéen ña bañ a laal parfum boo xam ne day sori ci ñoom lii mbokk ay teggin la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bisu àjjuma jot na nga sangu soccu solu laal sa parfum ñëw ci jàkka ji bi nga ñëwee nekkoo di jéggi nit ñi waaye danga xool fa sàppe ba yem rek nga taxaw fa gannaaw ba itamit nga julli la yàlla yombal ci nga julli ko ñaari rakka ñeenti rakka yaa xam nee na bi imaam di wax nga noppi déglu ko ba imaam pare ci julleem mu ne ko mel nii day suñu borom yàlla dana ko faral mboolemi bakkaar ba ba àjjuma di ñëwaat am riwaaye boo xam ne dañu daan nañ ko ca dollil sax ñetti fan encore même bu dee ajjuma bi ci tegg demul juma mbokk loolu mooy ngëneel bi ñépp bokk waaye nag suñu borom moo nañu saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin julit bam xamee ne lii ngëneel la daa war a góorgóorlu ci biir ngëneel mu raw ca dem àjjuma sangu dem àjjuma nga ne lépp ñëpp waaye nag mbokk yi muñu rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne nii day jóg na def li ma waxoon sànq sangu na taaru na dem ca jumaa ja ca waxtu wu jëkk ba nee na ko mel nii day day mel ne ko rayoon giléem daal di koy jël sarax ko ay masaakin ñi ñëw ci beneen waxtu wi dañuy mel ne ñu rey nag sarax masaakin ñetteel ba ñu mel ne ñu rey xar sarax masaakin ñeenteel ba mooy ñu mel ne ñu jël ganaar sarax masaakin juróomeel ba nag mooy ñi nga xam ne dañoo mel ne benn nen lañu saraxee xoolal nag mbokk différence bi nekk entre benn nen ak benn xar entre benn xar ak benn giléem loolu kon muy wañu ne jullit dafa war a tàmmal boppam di teel a dem ca jumaa ja donte ne boroom xam-xam yi am nañu ixtilaaf waxtu woowu fan lay commencé am na ca ñoo xam ne dañ ne mooy fi jant bi fenke ba léeg-léeg yaa ngi gis ci réseaux sociaux yi ay gars yi di ko def diggante 7 heures ba 8 heures 8 heures 9 heures kaza wa kaza donte ne ne am na ñoo xam ne dañoo gis ne déedéet loolu mooy fi zawal di jote te loolu mooy mazhab Malik ndax yonent bi alayhi salaam dane suma raaxa te mooy mu daal di daal di gont kon loolee gis nañu ne mooy fi zawal di jotee képp koo xam ne jóge nga sa kër teel a jëm ca jumaa ja su boobaa da nga am yoolu giléem boobee loolu nag mbokk di xéewal boo xam ne yonent bi wax na ko mu waxit beneen mbir nee na bu bisu ajjuma jotee suñu boroom day délégué ay malaaka ci aj ci aj ci jumaa yépp suñ ñëwee taxaw ci bunt bi di bind kan moo jëkk a ñëw kan moo ci topp kan moo ci topp di bind di bind di bind bu imam ñëwee ñu daal di kaste registre yi ñëw toog di déglu xutba imam nii lañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netti lay yal na yàlla boole ci suñu juma te boole ñoo ma ngi noonu malaaka ya gën a tedd mbokk lii mooy la nga xam ne nii moo tax ba da ngay gis lu bari ci saxaaba yi bu ñu ma saan ñëw juma gis ñu leen jiitu dañuy am lu ñu yëg seen biir xol waaye nga la waay góorgóorlu ci sa kemtalal kattan bokk na ci itamit mbokk heure boo jógee di jëm ca jumaa ja yéeneel ne maa ngi sakku ji xam-xam ndax loolu kat moo tax jumaa jóg mooy jullit ñi sa activité lu mu tar tar tar semaine bu nekk da nga ci jël benn temps toog téye say loxo téye sa gémmiñ di déglu ñu lay wax qaala allah qaala rasulullah yéene boobu ngay am day dee tax ba fa nga génne sa kër mboolem malaaka yi dañuy buñ la séenee dañuy wàcc seeni laaf ngir jox la cër respecté la ngiree la nga xam ne moom ngay sakku ci ci amul kenn kuy génn këram yéena ji sakku xam-xamu diine lu dul yàlla yombalal ko yoon ba nga xam ne moo tabbi aljanna loolu it muy wane ne nekk na benn njuumte boo xam ne doon nañ ko ci suñuy maam ba tey jii am na ñu koy défendre ca mooy xutba kenn waru koo wax lu dul ci arab kese waaye mbokk jullit amul benn société ci kaw suuf chinois japonais coréen wala lu mën a doon ñu nangu benn nit ñëw tiim mbooloo di leen discours pendant trente minutes ci li ñuy wax xamuñu ci dara loolee mbokk xel nanguwut loolu ca it la tax ñu yoonal xutba juma mooy fàttali ga nga xam ne nii imam da koy fàttali comme ni nga xamee ni noonu lañ nar a ñëwee nii ci kanam tuuti ay yéen jurit xam leen ni loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle nag ci ne waa ji bi mu ñëwee ci jàkka ji day daa téye làmmiñam téye ay loxoom loolu lu bari ci jullit ñi dañ ciy def ay njuumte rawatina suñu mbokk jigéen ñi la may jëkk a wax mooy jigéen àjjuma du farata ci moom bu ko neexee bañ a ñëw waaye nag boo solee sa dàll dem ca jumaa ja mboolem tuyaaba dañuy jox góor ñi yàlla bindal la ko looloo tax ba jigéen ñi démb dañ daan dem ci jumaa ji waaye ngal la waaye boo ñëwee ci jumaa ji xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax wax ju yéeme nee na ki ñëw juma mu dégg kuy wax mu ne ko ay noppil ansit mi ngi noonu ansit waxal noppil yonent bi alayhi salaam nee na ku mel nii day faqat la xawta indi nga coow ci ci jàkka ji ca waman la xaa fala jumaata la képp koo xam ne da ngaa indi coow ci jàkka ji la nga xam ne mooy yoolu juma yow doo ko am naam julli jumaa gi baax na def nga sa farata waaye ngërëm ba ca yàlla di boole ak tuyaaba joojee wax jooju nga wax nit ki wax nga lu koy ensuite nappil doo ko am waaw léegi kay wax nag moom lu ñuy lan mooy mbiram néegam ki naan ko noppil du am kiy wax lan mooy mbiram loolu di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel loolu moo tax ba même boo gisoon kuy wax soo ko mënee junj teg sa loxo sa gémmiñ loolu mooy la ëpp ca la nga mën a def ñaareel bi mooy ñu bari heure bu ñëwee juma dañuy commencé di nuyoo déedéet mbokk jullit heure boo ñëwee juma imam commencé gul xutba loolu amul problème man ngaa nuyoo waaye xamal ne fa imam commencé di xutba daganatul doomu aadama bi di nuyoo képp koo xam ne it dañ koo nuyu daganul muy fay nuyoo boobee allahuma lu dul bokk na lu borom xam-xam yi di wax waa ji nga xam ne dafa xamul dara ñëw toog ci sa wet rek tàllal la loxo ñu ne kooku mën nga ko nuyu ca mooy jël sa loxo teg ci loxoom heure bu jumaa bi pare nag nga xamal ko ne ko lu mel nii kenn du ko def soo xisee ba ñëw jumaa dangaa war a téye sa loxo waaye téye sa làmmiñ loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu it danañu jàngal ñu bàyyi xel la nga xam ne moom mooy manipuler ay portable ci biir xutba juma loolu mbokk kenn du ko def bàyyi xarit heure bu ñuy ñëw ñuy war a xutba ñu fay portable yi waxuma portable bi sonné waaye xatta yenn message yi nga xam ne day jóge ci whatsapp yi wala jóge ci yeneen yi jaaduwul ci biir jamono bi ñuy julli wala jamono bi ñuy xutba gannaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee kaddu gi gën a gàtt mooy ansit ansit nee na loolu indi nga coow loolu kon ñu war koo bàyyi xel bu baax ci loolu ñu yàlla na too tey ci portable mbokk am na ay teggin yoo xam ne nii it jullit bi war na koo bàyyi xel mooy heure boo xam ne nii ñëw nañ ci jumaa ji ah léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne imam bi day nekk noddukat bi day nekk di nodd ñu taxaw ànd ak noddukat bi ba pare doogal a kàbbar pour julli loolu mbokk ay njuumte la déglu xutba imaam farata la wuyu noddukat sunna la farata kenn du ko jënde sunna kon boo ñëwee noddukat bi nodd profitool julli sa ñaari rakka bu imaam de xutba nga toog déglu ko loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a wér ci masala boobu même boo déggee keneen wax na leneen lu dul loolu bokk na ci it bokk julit ñu xam ne ku ko yàlla man loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi sa àjjuma day ki jàng suratul kahfi yàlla dana ko may leer goo xam ne dana ànd ak moom ba àjjuma ji di dellu siwaat ku ko mën na ko def mbokk xam leen ne bokk na lu borom xam-xam yi di wax génne sarax ci bisu àjjuma day gëne na nga génne ko ci yeneen bis yi ni génne sarax ci weeru koor gëne ñu génne ko ci yeneen weer yi loolu it loo ca man nga def ko ci sa kemtalal kàttan ay yéen mbokk julit nañ góorgóorlu waatit ñaax njaboot gi ci ñuy fonkat ajjuma ñun day ba ñuy xale bokk na buñ masaan di fo ba kenn saaga da ngay dégg i xanaa xamoo tey la aljuma loolu lañ yarawul nit ñi nit ñi màggal ajjuma am na xale yi tey xàmmewuñu ajjuma ak dimanche loolu nag dañ leen cee war a yar nampatal leen ci ñu màggal suñu borom mu ne wa man yuazzim sha'air allah fa innaha min taqwal qulub lu yàlla màggal jurit da ko war a màggal ñu miinal suñu njaboot gi loolu gannaaw loolu itamit ngalawaay julit ñi xam nañu ne ñu bari ci ñoom seen aada mooy ajjuma dañuy dem ci jumaa ja loolu lu baax lu màgg la waaye it ñu góorgóorlu niñ koy defee juma nañ koy defee yeneen waxtu julli juróom yi ndax yàlla mi wootu juma moo woote la nga xam ne mooy waxtu julli juróom ñu bàyyi xel loolu bu baax benn yahuud mas naa wax ay moromi yahuutam ne leen xam leen ne day jullit ñi ñoom jarul ngeen leen di ragal fii gisu leen ñuy dem jullik fajar ni ñuy demee jullik juma fii gisu leen ko jarul ngeen leen di ragal ndax tant que ñu ngi nekk nii ñu nekk ca mooy bu ak juma juma yi fees mbedd yi fees mooy kon lu ëpp ci seen diine dañ koo teg rek ci ay aada ak folklore waaye bu doon la ñuy def yàlla dong nga tax nañuy demee juma noonu la ñuy demee fajar ak yeneen waxtu julli yi loolu it kon ku nekk ci ñun ngalawaay di bàyyi xel loolu mbokk la nga xam ne ni moom mooy juma jooju ba tey it bokk na la nga xam ne mooy sunna avant juma amul fu mu yem comme nañ ko waxee sànq waaye bu dee da ngaa julli juma ba pare bu dee ne mën ngaa julli ñaari rakka wala ñeenti rakka loolee lu baax la soo xamee ne boo demee sa kër da nga am fiix julli ko fa dara du la xatal nga dem kër nga julli ko fa soo ragalee gàllankoor nga julli ko ci jàkka ji bala ngay dem loolee itamit da ngay gis ne lu saxoon la ci sunna saxaaba yi daan ko def donte ne boo demoon ci ay gox ñu ne la mazhab Maalik da koo tere mbokk àjjuma mi ngi nii ngëneel yi ca nekk ci wàllu diine tënkal nañ leen ci lenn amma bu dee wàllu adduna itamit bari na àjjuma jullit ñi daan daje xamante nemmikonte dimbilente loolee da ngay gis ne lu am solo la loolu it day tax ba yéeféer yi gën a xam ne ah jullit ñi kat ndekete ñoom benn la loolee day tax ñu ragal leen leen ci loolu yii yépp mbokk ay ngëneel la yoo xamee ne nii lu tuuti la luñ jóge ci jële ci bis bu màgg bi suñu borom yàlla jagleel ñu bu ko defee itamit nañuy bàyyi xel su dee ne yow yàlla nattu na la itamit doo dem juma te lu bari suñu doom yi nekk bitim réew amuñu fa sax fu ñuy demee juma waaye tey yii bi réseaux sociaux yi tasaaroo xutba juma yi ñu koy mën a dégg fu nekk ngare waaye itteewul sa kéemtalaal kattan lu mu bon bon àjjuma bu nekk nga am benn xutba boo xam ne dañ ko déglu bu njëkk yomboon na loolu ñu koy déglu ci audio yi waaye tey da ngay gis ñii nga xam ne ni ñooy xattaa télévision Islam TV bi ñëw di ko jël di ko tasaara ci àdduna bi yépp ba léeg-léeg yow mi nga xam ne mën ngaa ah ñëw ci jumaa ji sax doo gis imam bi xutba waa ji nekk ca Washington wala mu nekk ca Kédougou moom jàkkaarloog imam bi dégg ay waxam loolu it xéewalug yàlla la goo xam ne dañ cee war a profitoo maa ngi ciy profitoo it di jàpp ne mas mas la a boobu nga xam ne moo nekk ci gannaaw xutba bi ña cay jëriñoo mu leen di jëriñ ay ati ati ati at moo tax yenn borom xam-xam yi permettre ñuy filmer ci la nga xam ne mooy ci biir xutba bi waaye bu dul woon loolu jaaduwul bi imam xisee ba commencé di taxaw di xutba doomu aadama yi waruñoo def lenn lu dul téye seeni loxo téye seeni tànk ak la nga xam ne mooy seeni làmmiñ yal na yàlla dépp la ñoom mboole mi xéewal gu muy wàcc ci aljuma yal na ñu yàlla boole ca ñay màggal lépp lu mu màggal yal na ñu yàlla defal jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira aljuma ji yàlla nekk xéewal ci ñun àdduna xéewal ci ñun ci biir aljanna allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin